Alassane Baldé et puis 6 milliards de francs CFA, c'est ce que réclament les travailleurs des industries chimiques du Sénégal à leur direction. Et pour se faire entendre, ces travailleurs des ICS ont déclenché un arrêt de travail d'une semaine, occasionnant de lourdes conséquences sur le fonctionnement de l'usine Le Point avec Pierre Claverpouille. On va arrêter les installations. Nous allons arrêter proprement l'usine, sécuriser les installations. Une semaine d'arrêt de travail pour réclamer 6 milliards de francs CFA comme charge sociale. On a une personne qui est là depuis le mois de septembre 2022. Quand nous sommes tombés d'accord, ils sont revenus sur leur parole pour dire qu'ils n'ont jamais eu 4 milliards. Ce ne sera plus 4 milliards. C'est 6 milliards. Au regard de la bonne santé financière de l'entreprise, ces travailleurs réclament cette somme. 2021, 2022, 2023, ça fait 1193 milliards. 400 milliards annuellement en exportation pour l'équilibre de la balance commerciale. Nous posons, comme aucune autre société sur l'économie nationale, on demande 1% de ce chiffre d'affaires. Des travailleurs qui indexent les différents régimes qui se sont succédés au Sénégal. Macky est venu comme Premier ministre. En 2004, il a nommé Ousmane Diaye comme administrateur directeur général. C'est Ousmane Diaye qui a signé le fameux contrat de Jérôme Godard qui nous a mis à terre. Le président Macky est venu en 2012. Au mois de janvier 2013, nous sommes partis en crise. Des travailleurs qui ont dénoncé les intimes et autres menaces de la part de la direction de l'entreprise contre leurs dirigeants. Ils promettent cette fois-ci d'aller jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Pierre ngir taw ba taw moom partir de tey entreprise bi dañ koy taxawal. liggéeykatu ICS taxawal liggéey bi fii ak semaine ñu jàpp ne daal dañ leen a war a jox seen juróom-benn milliards yi nga xamante ne entreprise bi amel na leen ko. six milliards deux cent quatre-vingts demande des travailleurs pour ñu investir ko ci social bi ak poste travailleurs yi pour ñu mën a continuer dund. moo nekk ci PV de non conciliation. dañuy jël une semaine. lundi lundi vingt neuf. dañ ñëwaat ci biir usine bi. ñu jàpp ne société bi am na koppar te ñoo ko liggéey. loolu tax ñuy laajte bile koppar. francs ñun ñoo ko liggéey ñu fay ko ñu muñal leen ñu yeggali ko biñ ko yeggalee ba pare na le plancher est dégagé def nañ ci entreprise bi ci matériel bi def nañ ñoom ci capital financier bi mais nañ def ci travail buñ ko daful mun noo liggéey ci noonu ñoom ñooñu lee di joxoñ baaraamu tuuma nguur yi nga xamante ne jaar nañ fii ci biir Sénégal liggéeykat yooyu lay ñaawlu xokkatal ak tiital bi direction bi di amal ci ñenn ci syndicalistes yi ñu jàpp dinañ dem ba jeex ci xeex bi lee ngir ñu jot seen juróom benn yooyu lee une semaine bu ñuy banque seen loxo moom forcément dina am njeexital. dina am njeexital xadita it ñoo yéey parce que nag bu fekkee ne koppar yi lañ leen amel. Mm-hmm. nekk na loo xam ne dafa takku. parce que mm-hmm. juróom benn milliard ñu jël ko amel ko ay liggéeykat yoo xam ne dañuy indi seen i doole ci ICS indi seen i xalaat ci ICS mais aussi di fexe ba entreprise boobu di jëm kanam. Mm-hmm. c'est que ICS xadi lii dafay gën a firndeel euh, li nga xam ne mooy position wu ñu bëri ci Sénégal mu di waruñu woon jël entreprise bi teg ko ci loxo ay indien ñëwuñu pour perdre suñu ñëwee nag di wut lépp lu jëm ci koppar dañ koy jël aaki moo ko duñ bokk ak dara ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat yi ndax mm-hmm. ndaxte ñëwuñ fii vraiment pour def tourisme wala ñëw fi balaa dañ ñëw pour gën fee yokk seeni doole léegi nag tey jii lii wane na ne ñii eh, amatul lu ñuy njëriñ ñii di waa Inde ñi nga xam ne ñoo yor eh, management ICS parce que bu fekkee ne dem nañu ba liggéeykat yi nekk foofu noonu ñu leen di yoral ay koppar te ñëpp xam nañ ne entreprise bi ah mu ngi liggéey am na loo xam ne ay koppar yu dugg ci entreprise bi la parce que mm-hmm. dégguñu benn yoon ñu ne ICS am nañu euh, li nga xam ne moo di pertement yu métti métti wala sax ñu dem bay bëgg a jël euh, caabi daal di ko tëj mm-hmm. kon nag ICS moo ngi dox mais mu ngi dox ci indien yi doxul ci sénégalais yi mm-hmm. c'est l'occasion nag ndem contrat de concession bi moo ngi jeex bu ñu ko renouveler dañ ko jël jox ko ay sénégalais man gëm naa ne au Sénégal surtout dans le privé am na ñoo xam ne mën nañoo jël contrat de concession bi te buñ ko doxalee mbir mi day gën a des ci réew mi mais ñii di indien moom fi ne nii wala nañ ne ñoom mënatuñ tële nañ te dem nañu ba lii di liggéeykat yi ñu yoral leen koppar nañ leen ko fay nag. Mhm. nañu fexe ñu fay leen ko parce que ñoom it am nañu ay droit yoo xam ne seen sañ-sañ la xaalis bi ñoom bu dee dañuy dem ak dañuy toog. Mhm. buñ ko yóbbaale nañ ko fi ba jox ko sénégalais yi parce que loolu tam mooy dëgg. mu nga euh, Ndeye Fatou ñu wax ci euh, leneen waaye